الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد cant bi maa ngi koy jiitale sunu boroom mi nga xamee ni moo waral lépp ci mbaaxam ci teddaangam ak ci bëgg bi mu bëgg muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam bu ma santee sunu boroom sant bu amul commencement te amul fin ma jaar ci xaritam bi ci soppeem bi xaatimin anbiya wa imaamin kull mursalina muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam fondation que rasoul fkr si la ñuy commencé waxtaan bi lan moo ko indi ñu ngi ko sos man na douze ans macha allah lan mooy mission bi Ben mission la am moy fexé yépp di bëgg alayhi yépp di ci fondation Karasoul, rasoul bu nu xolé jamono plus de 300 groupes WhatsApp partout à Dakar ci banlieue bi ci région yi ci bi WhatsApp yi nga xamee ni dañ ko ubbi ngir lan ñun ñépp ñu ànd di wasaare liggéeyu ki nga xamee ni bu dul woon moom sunu borom du sàkk dara kon groupe whatsapp ay école la des écoles du prophète am na ay oustaz ay imam ay sayda yi ci nekk di waxtaane alxuraanu karim di waxtaane ay xisa jëmale ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fondation Kër Rassoul am na événement bi gën a faax bi gën a mag suñu événement yi muy guddi mawlit nabi gàmm bu ñuy organisé aux Almadies macha allah depuis douze à quinze ans gàmmu gi lu ëpp six mille cinq cent ay soppe nabi dañ koy fekke ñu ànd di màggal guddi bi nga xamee ni moo gën ci guddi yi